dikkati na Sénégal day mooy askan woo xam ne dañ koy tànnal nag kan ci boppam moo koy jiite moom askan wi benn tànn la ñuy tànn waaye yeneen tànn yëpp dafa mel ni jenn jinax ju génn rek jeneen ju génnaat jeneen lan lay woy waaye dootoo tuddati ji nax turbine yéen a kaay naan man dafa mel ni lii moo am ci réewum Sénégal askan wi benn tànn la ñuy tànn waaye buñ la xasee ba teg ci njombaxtalug réew mi jeex na yow kay yaay fëgg sa dënn tànn sa bopp wala it ka lay wuutu yaa koy jéem a tànn askan woowee nag nga xam ne ñoom ñoo yor seen tëggal guy ceeb bi a fal war folli ñoom askan woowee dañ leen di falal di leen follil moo tax yéen a kaay bi naan leen saa su politique amee ci réew mi wala fal ak folli yéen ay ñàkk te xam ngeen yéen askanu Sénégal ñàkk moom da ko daal di dëkkee ana coowal Karim Meïssa Wade a kaay naan man riigal foofu sa baaraam ma xamal la ni doomu Abdoulaye Wade ji day dikkam gi weer wu dee ñu ne Karim ci yoon walis woo xam ne te la daal di dikkee Karim Meïssa Wade ma ni la dikkam gi daal di yeex ba maar day taali laaj wasamp ko yéen a kan moo téye Karim Meïssa Wade ba mënta séqi jéego teg tànkam laaj wi tribune yéen kaay ma ñëw rek coowal Karim Meïssa ma ni la na fi ñu ni ko yow Karim da nga saax-saaxee alaluk askan wi te bonne gouvernance la ñu woote fii ci réew mi daal di jël doomu Abdoulaye ji ni ñàpp ci kaso bi bonne gouvernance da ngeen ko gis ci réew mi reddition des comptes moom wax la ci làmmiñ la yem El Assane Sall naan man coow li coow li mooy lenn rek moom Karim amoon na doole amoon na xaalis gàntal ko dammi laafam ba mënta yootu réew lii moo sabab gi te matale nañ ko ndax nag bu janoo woon jamono joojoog président Macky Sall doon noonu moom Karim Meïssa Wade parti démocratique sénégalais goo xam ni maar day taali machine de guerre la mënoon naa xeex amoon na moyen waaye tam Karim amoon na carnet d'adresse ci ginnaaw nag mu amoon coach boo xam ne ku mu ngemb boo moytul doolaal suuf muy bàyyi ba maître Abdoulaye Wade Karim nekkoon menace goo xam ni maar day taali ñu toj kaso ne rab tey ñu koy toppee téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay milliards askan wi daal di ñàkk foofu El Hadj naan man ñàkkunu foofu kese Khalifa Ababacar Babacar Sall dossier am jaar na fi askan wi nag daal di ñàkk ñaar yoon xam nga lu tax am nay projet yu bari yoo xam ne maire bu Ndakaar da koo tegoon bëggoon joyanti askan weeg seen i jafe-jafe waaye tam seen i dundin daal di ñoŋ moom xaaf daal di téye Ndakaaru poñe ko nguur gi daal di ne buñ ko defalul bagage làmbaay ñaaw ñu daal di koy karkaraatoo daal di jibal coowal caisse d'avance moom Khalifa Babacar Sall laataa moo comprendre ma nga ca tribunaux ya ñu daal di koy atte fast track déjjati ko ci maire bu Ndakaaru la ca bizarre mooy benn milliard juróom-ñetti téeméeri million ko jiiñ ña ànd ak moom daal di koy teg ci table bi nguur gi ne leen acam bëgguma jëluma coow la nag nekkatul woon mbiruk bon gestion waaye faagaagal ab adversaire politique la yéene kaay bi naan man te la ñu jëm boo maytul ak Ousmane Sonko yoor yoor yéene kaay naan man xam nga Ousmane Sonko attekat bi nga xam ne moo ko war a atte fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bii moom juge rapporteur bii di Abdoulaye Ndiaye Sonko dàq na ko ndax nag nee ñu mbir mii mës na koo xam mës na cee wax atte ci ngeen ma ñëw rek ma ne la fa Khalifa Babacar Sall jaar Karim Meïssa Wade jaar fa soo moytul nag Ousmane Sonko mii bu ñu seetaanee mu jaar fa fa yallaahu Ousmane dafa daal di jóg rek tàbbi ci xoluk sénégalais yi gars yi ko tàmbali koo joxoñ naan ko Sonko yow la yaa fi nekk ñu tourné ne ko Sonko danga fee sàkku yoon ne ko yow sàkku woo terewul Ousmane Sonko ñaari atu kaso tëj nañ ko yeneen ak yeneen daal di topp ci coowal Ousmane Sonko lii ba tey moom Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi ñu daal di koy téye te ba tey réewum Sénégal moo ñàkk ndax lu ñu def ci choix lu ne ne gars yi daal di tàbbal géej daal di def la leen saf source a naan la leen saf la ñu dikkee de la CEDEAO gii ñu jëm lu ñu mas a digal président Macky Sall masu koo def fukki at a ngi nii moom président Macky Sall di leen dëkk ci traque des biens mal ba ba ñu teree Karim Meïssa Wade mu génn réew mi ba CEDEAO nee na génn dañoo lànk 2018 cour bii nee woon na Khalifa Babacar jàppam gi jaarul yoon France daal di xiddeem tere woon nañ fi manifester centre ville ba tey mi sañ-sañ dogal yi nga xam ne attekatu réewum Sénégal gii ñu ngi koy daal di def vox populi naan man en tout cas ayib dafe en attendant président bu Sénat war na dajeeg secrétaire général bi ngir waxtaan ak ñoom ngir mën a jot fiche de parrainage bu Ousmane Sonko l'observateur xëy samp laaj fuite yi nga xam ne mi ngi am jamono ji ci administration pénitentiaire bi lan moo ko indi ñàkkub maandu la ñàkkub xam seen liggéey la wala it ñàkkub xam darajaat seen liggéey ci ñenn ñi la lu ci mënti am daal daan yi dina am ay bopp daañu leen kupp le soleil yéene kaay naan kon boobu sàll ngaari lam tooro buur géde ma renforcer défense nationale bi moom président Macky Sall day diggante 2012 ak 2023 daal di nay mag lool terewul sàll tàggu na leen naan l'armée bi nag baay baay le témoin yéen a kaay naan kon fi mu ne xiif day moo am ca diwaanu Fatick ak mbay moo xam ne nee ñu doxul l'indépendant yéen a kaay naan maan boobu parrainage baa ngi mel ni tulleeg maale gëm sa bopp daal di nay dajale lu toll ci juróom-ñetti junni ak ñetti téeméer ci ay xaatim ci parrainage yoo xam ne ma nga bàyyeekoo ca Thiès kaay dëkk ñaari gaar diggante nooto Jobaas ndiireen aaneen ak Touba ba Fandeen ak Pout Serigne Ibrahima Sylla ak ñamu àndal daal di defi feem teg ci table bi lu toll ci juróomi junni ci parrainage ca Fandeen juróom fukk ak juróom benn ci ay dëkk dëkkaan daal di ngéem bu taxaw daal di xaatimal coalition gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany yéene kaay bi naan lay ci boppam la ñu bañ mu am moo tax feem gi moom moo di xale yi ci boppam daal di dugg ci koñ yi xam ne na gëm sa bopp taxaw na ngéem bu na soobu bu baax a baax ci parrainage yi tribune yéene kaay naan maan mouvement perspective waajal ëllëg te Bakary Traoré daal di koy jiite daal di nañuy dajale ñetti junni ci xaatim sabab ga nag di juróomi junni parrainage yoo xam ne dees na ko jébbal Amadou Ba gannaaw jébbale ga moom Bakary di woote booloo ca diwaanu Géejawaay te di xam leen ni nag fi mu toll nii booloo mooy doole te moo leen mën a jox ndam Abdoulaye Falit candidat Cap Sénégal naataange di xam leen ni moom moo di kandidaa bi nga xam ne moo fas yéene jubóole sénégalais yi nga xam ni féewaloo nañu waaye tam dooleel Sénégal ngir mu am stabilité nekk ci jàmm l'info yéene kaay nan man jàmmuk état bu Sénégal tey jii moom moo di daal di dakkal màngaan gi nu mu gën a gaawe ministre ministre de la jeunesse daal di ciy taxaw daar daar ngir dem gi moom daal dakk turbine yéen a kaay naan li dakk moom moo di gis reetaan gi nga xam ne daan na féexal xol yi te lépp daan jugee ci moomi bu sa seek turbine yéen a kaay naan de dafa daal sargal ndem si yàlla si directrice bu dee média bi naan kon yàqoo fi dara te xam le it jàmbaar dëgg bi nga xam ne moomi bu sa seek doonoon na ko waxtu woow la mandat di ma xamal ni it diaspora ba ma ngay sargal Seydina Seck taskatu xibaar bi yéen a kaay bi xamal ma di diplôme d'honneur la ko diaspora bi